xaw a yéeme bu ñu demee ba gis ay député yoo xam dañuy dem bay xeex euh, euh, di gajjante maanaam di di di wékkante euh, loolu dafa doon loo xam lu doy waar la dóorante ay chaise di loolu est-ce que yow bett na la wala bettu la non bettu ma ah jamais parce que xam naa assemblée de rupture du am te du ma sa am ndax lan parce que c'est le reflet de la société sénégalaise hmm? parce que tey assemblée yi bon député yi bon naka lañ leen di choisiré tànneef yi tànneef mhm. yi donc ku ci nekk toogaluloo fa demuloo fa pour toog pour liggéeyal askan bi ak ñaari côté yëpp nag lay waxee hmm. mooy waaw pouvoir ñi nekk dans l' opposition même lu pouvoir bi def ci lu baax lu mu baax baax baax duñ ko apprécier mhm. jamais mhm. ñi nekk dans le pouvoir aussi lu ñu fa indi bu baaxee bu bon it dañ koy apprécier donc boor boo mënti féete aussi. Mhm. soit dangay sotti suuf rek wala ngay defar ñii di defar ñii di kii c'est ça. Mhm. Mhm. et malheureusement c'est au détriment de la population. parce que ñoom ku ci nekk tey yaa ngi defendre sa groupe ba nga bokk. wala sa leader ba nga ba fa andi.

bon tey kaaw Ami Ndiaye yi boobu ngay wax. ñibbi waaw ñibbi moom li mu am sama moo ko xeexal boppam. Mhm, moom parce que tey moom c'est moom mooy meeru ñibbi. Mhm, mooy maire ba muy dem élection meeru ñibbi demeewul Benno Bokk Yaakaar liste parallèle la demee. donc c'est quelque c'est mhm. c'est une donc moom moo demal liste boppam gagné liste Benno Bokk Yaakaar bi au niveau de ñibbi. ñu parce que aussi responsable yi aussi c'est le à la base. waaw mais fekkee ne nag bon mais danga ci gis ñoo xamante ne bon c'est c'est dañ nii rek dañ leen tànn nii rek kenn mënu kenn mënul xam si du yan critère. affaire de copinage affaire de copinage ou bien bon les lobbies par ci par là malheureusement c'est ça te loolu fépp la que mm-hmm. soit dans le pouvoir ou dans l'opposition c'est moo tax c'est ça looy gis parce que da ngay xam ne yow fii nga nekk tey. mérité amuloo base bu la tax tey nga nekk fii. Mm-hmm. mais il faudra que les louanges ki fa teg malheureusement c'est ça. Mm-hmm. moo xam yaa dépose euh, député pouvoir nga moo xam député opposition la c'est ça change rien. Mm. est-ce que nekkul aussi loolu mooy jur ko frustration ci biir coalition seen coalition bi ngeen ne. parce que aussi waa au delà parce que yow bon euh, au delà de Yewwi Askan Wi mais coalition Benno Bokk Yaakaar bi nga ne. Mm-hmm. Ah, euh, sànq yaa ngi tudd frustration bëgg cee laayaale <laughs> waaye Yewwi Askan Wi mm-hmm. mais euh, nañu wax li wax li am yéen da ngeen a frustré. bien sûr ñu bari si yéen da ngeen a ci coalition Benno Bokk Yaakaar xam ne noonu lañu koy doxalee. mais looloo tax résultat yi élection yi passé yëpp euh, ñu gis ko mu feeñ ci. mais nag élection yi moom population bi doyal si yéen. waaw mais population. population bi commencé doyal ci yéen. population bi moo commencé doyal. Ah. parce que population bi responsable yi ñuy àndal. Hmm. gars yi jàppale wuñu leen taxawuñu leen. Hmm. population bi aussi tourner le dos parce que tey yow mënoo yor say militant ñu gis la. Hmm. ngay sacrifier wu pour ñoom di sacrifier wu pour état bi di sacrifier wu tout gisuñu dara luñ lay. lu ñu la jàppalee gisuñu benn reconnaissance mais ñoom finalement dañ naan ben ñun aussi mënuñoo continuer di la topp mm-hmm. alors que gisuñu benn reconnaissance donc on va sanctionner mm. pour won président carrément ne ko ñun kontaanuñ naka lañ ko ko mën a wonee parce que amuñu accès mënuñu dem toog ak moom gis ko wax ko lu ñu bëgg lu ñuy def suñu carte lañ yor malgré que bëgg nañ la trop bëgg nañ laa jàppale et mm-hmm. mais nag dañuy yor suñu carte mm-hmm. sanctionné mu xam ne perte na fii. bennoo xeex bennoo. c'est ça. Mhm. loolu moo loolu moo ci am. Mhm. Mhm. bennoo xeex bennoo. bennoo waaw mais mais bu ñu dugaatee assemblée ndax euh, wax nga ci ne rupture munta am ndax fekk xooluñu tànneefu député yi euh, député yi tànne nañ leen ba noppi ñu ngi assemblée tey ñu gis beneen assemblée goo xamante ne day wuuteeg lool ak yi fi jaar. yëf yi dem ba jéggi dayoo ay kurpeñ ak yeneen ak yeneen euh, ndax lii bu dakkul fan la ñu mun a yóbbu ëllëg ak acte bi nga xamante ne député yi posé nañ ko ca biir. ah que acte bi ñu posé nii ñëpp ñaawlu ko. Mhm. xanaa ñoom actuellement ñoom aussi war nañ def prise de conscience. tout xam ne vraiment askan bi jéppi nañ leen. Mhm. parce que loolu la malheureusement mënuñu leen faa jëlee. Mhm. tey c'est sûr que boo defoon. sondage wala nga demande population bi ndax ñu tas assemblée bi tey tey ñëpp da bu ñu ci amoon pouvoir dañ koy def ndax yaakaar naa ni li ñu fa gis moom déception la. Mm-hmm. déception la c'est à tous les niveaux nag ndax déception c'est tous les. les mm-hmm. députés mais li ci ci yéen nag waa benn bokk ah. la. non parce que jigéen ña fa nekk aussi quoi qu'on dise tamit ñëwuñu fa ah. mais loolu yëpp xam nga da ngay gis benn député bu nekk yow taxaw di kaas di di kaas. Mm-hmm. nga benn jigéen nekk fële di ko suruxlu di saaga di sànni ay dàll. waaw ah. waaw mais loolu yëpp si bu ñu waxante dëgg aussi niveau yi aussi dafa bokk dafa mel ni que yéen waa yeewu askan yi ñoo ëpp niveau ci waa ko ko ko waa waa benn mais loolu ñoom ñoo ko jékkee hmm. ba ñuy def installation assemblée bi gis nañ seen seen yi fa am hmm. ak yéeg ci kaw ay table urne yi ak micro mm, bu di ay micro ay hmm. yëkkati ay mais là parce que loolu aussi buñ bu ko ñeneen ñali gisee ñoom it dañuy dañuy nekk dans sur leur garde dañuy xam ne ñii kat dañoo ñëw pour defanti te ñoom aussi dañ koy wax chaque jour boo waxee ñu ne la non non loolu fi amoon du fi am maintenant ëpp ñu ëpp ñu donc dañuy ñëw xeex. donc maintenant ñoom ñëpp actuellement ñu fa nekk nii laa wax ils méritent par leur place la ba hmm. kon assemblée en tout cas bëri ci. quelques rares ñoo fay ñoo fay mérité mais la majorité vraiment amuñ fa place. au niveau de Kaolack est-ce que député yaa fa féete ñu ngi kaasal gox ba. surtout Latmingué bi nga fekk baax. non ñun moom amuñu député Lat Latmingué géej nañu am député depuis jamono yi Ablaye Wade. donc hmm. euh, amuñu amuñu député on a deux député ou trois députés au niveau de. Kaolack de Kaolack ñu ngi ci biir Kaolack commune lañ nekk. j' espère que ñoom it ñu ngi ñu ñu ngi def mais bon de manière générale député yi pour wax vrai les députés là ils sont pas là-bas au service des population malheureusement. Hmm. léegi léegi léegi li mu wax dafa am solo ah. euh, parce que aussi quoi qu'on dise tamit euh, euh, dafa am loo xam ni yaa ngi ko tudd sànq. yaa ngi dugg Kaolack. Mm. Kaolack googu nañ si yem ah, nañ ci des. parce que Kaolack aussi am na ay responsables yu mag parce que bu ñu waxante dëgg aussi Macky Sall mosul fàtte Kaolack. parce que boo xoolee directeur de la de l'horticulture foofu la ne. Mm-hmm. Makumba Kaolack la Kaolack la fekk baax. Mm-hmm. directeur général bu Sénélec. ma Pape Pape Demba Biteye mm-hmm. foofu la fekk baax. Mariama Sarr. di jëwriñ yaakaar moom dañuy dénk wàllu mooy dañ ko changé nag quoi formation formation professionnelle moom moom moom foofu moom foofu la ne c'est-à-dire que euh, Kaolack moom yàgg nañoo am ay kilifa ci wàllu politique ci wàllu politique ñoom par contre lan lañ defal waa Kaolack loolu loolu la ñuy posé foofu problème bi mooy Kaolack la fa nekk mooy 2012 ba léegi mhm. les mêmes personnes la ñuy promouvoir biir Kaolack biir Kaolack les mêmes boo xoolee les mêmes têtes ñoo fay nekk tout le temps mhm. alors que y en a d'autres des dizaines yoo xamante ni ñu ngi fa di liggéey mm-hmm. tey boo xoolee moo tax chaque chaque élection suñu électorat day gën a wàcc. day wàcc parce qu'on perd beaucoup de responsables qui qui fa base. bon bi presque jeex na parce que tey. fekkee c'est les mêmes personnes ngay promouvoir tout le temps tout le temps mais les autres là ils vont être frustrés seen base bon après dootuñu ko mën gérer seen base seen militants yi dañuy décourager après bon pour yóbbu leen day day day yomb après. mais Ablaye Boubacar bu ma ko déggee dafa mel ni ku frustré quoi. waaw non non. parce que non non man frustré. parce que moom it daa mel ni mu ngi ci tànk quoi wala seen. waaw non non non frustré gars yi tuufaguñu. non non non gars yi tuufaguñu ko. <laughs> man dama jàpp ni sax moom est-ce que nekkul société civile buy wax da ngay tege de. Eh? farul fenn farul fenn quoi. voilà c'est que man man ah. j'ai ma j'ai ma liberté. ma liberté totale kenn tënku la. man li gars yi di wax gannaaru kenn nenu ma je suis libre. Mhm. donc li ma xalaat dama koy wax. même si que buñ la joxoon réponse buñ la faloon tey dara nii ngay continuer di waxee. absolument man moom yooyu moom aw ma ci aw ma ci kii li ma li ma xalaat noonu lay loolu lay wax. moom. que je sois ici ou ailleurs c'est c'est donc la moi je suis je suis daw ci ginnaaw kenn du ma du ma neexal kenn non non man li ma war a wax dama koy wax et c'est tout je passe à autre chose mais mm. ah. mais mais damaa jànge ci moom Kaolack bu tumuranke mm-hmm. saalum gu tumuranke ci nguurug Macky Sall mën nañ ko wax même si mënoon naa ñàkk ndax quand même am na lu mu fa def. Mhm. mais malheureusement aussi ñam fay promouvoir aussi c' est des gens qui son fermés qui sont pas ouverts xam nga. Hmm. suñu problème coalition ak suñu parti mooy les gens sont inaccessibles. Hmm. Hmm. doo leen gis tey ku fi jóg jóg dem Kaolack sax sa oto ngay taal vitre te dem yoot ndànk dugg sa kër. tu kenn du la woo téléphone nga wuyu kenn du la envoyé message nga wuyu. ku dul wuyu responsable yi xam na bi nu ngi doon ba élection jotee nag maintenant nag ngeen soog a wàcc ci terrain bi commencé disponible naan ataaya fii di yeecaa def lu leen gis naa babi voilà lépp gis naa saaf gerte caaf <laughs> élection yi jeexee après c'est fini après nga fàtte ko ya nga jëloon doo ci respecté dara après nga dem réew mi neex voilà donc malheureusement c'est ça bu élection jotee bu élection ñii di lido ah. di lido ah. di kaayu ndaw ah, waaw mais aussi loolu dafa tuñu léegi quoi <laughs> <laughs> Sénégalais aussi léegi dafa tuñu am ah, la léegi léegi dafa tuñu politique neex na non c'est ça c'est ça mais mais yan nga yaakaar ne moo tënk Kaolack tey boo jëloon kàddu gi doonoon honorable xëy na wala nga amoon benn ndombal tànk goo xamante ne boo ci waxee waa Kaolack xam ne fii mooy metti te laal nga góom bi Kaolack yaakaar naa Saloum eh, dans la commune de Latmingué léppay métti Saloum ci boppam lépp ay métti parce que tey hmm. jeunesse bi ñu nga fa kenn jàppalewu leen jigéen ñaa nga fa forme wu ñu leen amuñ autonomisation parce que là c'est important parce que ñaari yëf yi ñoo ñu ñoo mën a développer gox ñoo mën a développer dëkk ndaw ñi ak jigéen ñi mhm. mais su fekkee ni ñooñu dañ leen di utiliser juste pour élection rek su paree jeex na mais danga fay gis lu ñu nekk tey boo demee Kaolack activité ba fa gën a dox mooy moto Jakarta yi Jakarta waaw mhm. kese mhm. moto Jakarta yi ñoo fa nekk te moto jakarta yi aussi. ak bool ak ak les loo lot d' yi fay am. tous les jours ak bool yàpp yi. kese loolu rek moo fa nekk caay loolu moo fa nekk. <laughs> amul leneen jeunesse bi yëpp ci loolu lañu nekk. jeunesse bi yëpp ci loolu lañ nekk mais campagne bi aussi. que aussi Kaolack aussi bassin la bassin hmm. arachidier la yi aussi gis nañu dëkk la boo xam ne dëkku dëkku gerte la. gerte te fan yii commencé nañu campagne jaay ngiru gerte gi. Euh, hmm. euh, euh, li information bi ma jot mooy que jusqu' à présent. Hmm. Sonacos mënuñoo fexe sax ba ba jënd benn camion gerte. Mhm. mais daa mel ne population bi dañ jël décision daal di leen boycotter. non xam nga aussi c'est très simple parce que tey Sonacos mënul taxaw ne day jënd kilo gerte deux cent soixante quinze. yow nga gis kuy jëndee trois cent. wala quatre cent trois cent cinquante jëm mhm. c'est la loi de l'offre. parce que mhm. tey aussi xam nañ ne bon jiw bi. c' était trop cher. Mhm. engrais bi c' excessivement cher pour nga am ko mhm. day jafe ndax man xam naa si dara damay béy. Mhm. donc intrant yi et tout ça ça ça nous a coûté cher donc loolu état war na ci gën a taxaw gën a jàppale paysans yi si loolu. parce que yow loolu moom la ko def ba pare wala te ku ñëw maintenant le coût de la vie e cher même si instant yi wàññi nañ bon c' est bien mais quand même pour ñun c' est c' est pour les paysans. moo tax kenn du ko jaay alors que ñu ngi gis à côté 325 350 jusqu'à 400 francs. am na aussi benn waay xam mu ngi mu ngi déglu dafa ma envoyé message ah <laughs> nee naa ko jàppale rek posé ko question bi. Mhm. nee na gis nañ la yaa ngi gisee ko Bougane Gueye Dany aussi waaw gëm sa bopp nee na aussi. récemment récemment. waa jaa pense que c'est 900 934 ah. nee aussi récemment aussi Aminata Touré recevoir na la. waaw oh, est-ce que nekkul da nga nekk ci tànk yi dem. mais kooku APR la bokk wala. non non Aminata Touré bàyyi non kii xaw ma kan la. non kooku est-ce que nekkul APR daf la xam kii ku la xam la. kii xam na ko en tout cas. xam na ko de. Eh? non ñun ci terrain politique bi lañ nekk. man li may wax chaque jour. que. fi ma nekk fa laa nekk maa ngi affaire mais man ku ma soxla. Hmm. ak ku ma demander hmm. damay toog wax ak yow. waaw man je ferme jamais de porte à personne. Hmm. ak parti foo mënti féete nag foo mënti bokk parce que toog waxtaan ak nit taxul nga dem ci moom. man ku ma sollicité wala ku ñëw à ma rencontre ñëw toog bëgg waxtaan ak man damay toog ñu waxtaan ma wax la li ma xalaat wax la sama position et tout man je ferme jamais de porte. mais kii li may wax dëgg la. kon gisee nga ak Bougane gisee nga ak Mimi. ak ñeneen ak ñeneen sax. Ah, kon wax na dëgg. bien sûr kon ku la xam la de. <laughs> Ah, te xam nga aussi. Ah, non non euh, Bougane gisante wuñ déggante nañ. Mm-hmm. déggante déggante téléphone. Mm-hmm. c'est normal. mais moom nu ko xamee. ah waaw gars ñëpp ay gëstu rek. mais réew mi wóoratu la. <laughs> non mais mais dañuy topp kaa dañuy topp kaa de. mais réew mi wóoratu la mais mais est ce que loolu aussi bu fekkente ne say ñi nga bokkal parti. bu ñu ko mm-hmm. déggee. ñëpp mm-hmm. xam nañ ne Bougane opposant la bu far bu faru ci côté Macky Sall. Mm-hmm. Aminata Touré aussi nekk aussi benn opposante aussi bu taxaw. ci côté Macky Sall. tey jii yow ngay ànd ak Macky Sall bu ñu lay gisee ngay ànd ak ñoom est ce que la nga bëgg maanaam ñu jox la ay ma tànk daa ko wóolu jox la ko. no ànduma ak ñoom. maanaam man nga ko nga ko too ay. toog na loolu moom man chaque jour je suis comme ça. Mm-hmm. quelle la personne bu ma woo wala bu bugg toog ak man je le ferai. Mm-hmm. parce que nag c'est pas parce que toog naa ak yow wala wax naa ak yow que dama lay fekk si ci say conviction wala dama lay fekk si ci say ci li nga nekk no mm-hmm. man dafa am ci lu ma nekk te man pour vous dire aussi man dama yor sama base di liggéey ak ay responsable décision bu ñuy jël dañ koy def à la collégiale dañuy toog réunion lañ koy defee man je prends pas décision seul mm-hmm. mën naa dem rencontrer par ci par la mais bés bu jël décision jotee damay demaat au niveau de la base dajalewaat tous les responsables ñu toog ñu waxtaan décision ba ñu fay jël décision boobu man noonu. mais mais mais kan mooy sa candidat 2024 amaguma candidat officiel maa ngi biir APR parce que même su le président déclaré bu sa candidature donc mënaguñ wax ne les candidats hmm. mais est-ce que war ta doon war na doon candidat